Sénéinfo International. Sénéinfo International bonjour daleen ak jàmm si lu gën a fës si xibaar yi euh, vendredi 24 euh, novembre 2023. Euh, euh, le soleil la ñuy commencé euh, donc le soleil ñëw na ci inauguration bi nga xamante ne def nañ ko démb ci Diamniadio Diamniadio quartier général de l'ONU QG de l'ONU donc loolu la journal bi xëy xamle Euh, dans ça, une la sphère abritant toutes les entités inaugurées hier par le président de la République. Donc, euh, nous avons une agence onusienne, une ex-Sénégal, nous avons ouvert la benn ben ben quartier général, fallait se pour vraiment nous pour, pour, pour, seen pour, euh, convenablement. lii j'ai voulu vous offrir un cadre idéal et adéquat de travail donc mu ngi noonu 34 agences onusiennes ñoo nekk foofu si Diamniadio si benn quartier général boo xamante ne moom lañ leen érigé euh, pour vraiment ñu gën a mun a euh, seen liggéey convenablement donc ñu ñëw si la bâtiment boobu wala bâtiment de 13 hectares boo xamante ne def nañ ko foofu dina transformation de Diamniadio en ville en une ville moderne loolu la journal bi xëy xam ne na Macky Sall le torse Euh, ñu des rek ci journal bi moom mu wax ne ci Amadou Ba débauchage des partisans de Boun Dionne et de Mame Boye Diao euh, les coups bas d'Amadou contre ses ex donc euh, ñi nga xam ne ñooy ay partisans Amadou Ba partisan Boun Abdallah Dionne moom moom mi nga xam ne moo nekkoon ancien ministre donc moom ay partisans ñu ngi dem ci Amadou Ba donc Amadou Ba mu ngi leen di débaucher loolu la journal bi xëy xamle. ñu def teg journal bi mu ne une urgence sociétale selon Anta Babacar Ngom donc Anta Babacar Ngom mu ngi wax dénoncer les violences sexuelles yi nga xam ne ñoom koy def si xale yu jigéen yi ak les violences faites aux femmes nee na c'est urgence vraiment euh, sociétale pour ñu mun a régler phénomène boobu noonu. ñu ñëw si Walf Quotidien Walf Quotidien mu ngi ñëw si ministre euh, Abdou Karim Fofana. sur le, les prix nee naa le contrôle des prix l'impossible mission donc ça il faut la xam xamle en agent pour ses 500 commerces loolu la journal bi xëy xam ne ñu def rek ci journal mu ngi wax la candidature de Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko déroute ses partisans donc loolu la journal bi xëy xamle euh, dans sa une. le quotidien moom mu ngi ñëw rek ci présidentielle 2024 comme li ñu leen waroon wax sànq rek euh, par rapport à bataille bi nee na. Euh, non d'une bataille donc cinq délégués régionaux Doro Dione 2014 2024 débauchés par le pouvoir donc euh, l'ex-PM le candidat de Benno cherche vainement à ajouter nos délégués donc loolu la bu Dione xamle moom ki nga moom moo nekkoon premier ministre euh, Macky nee na moom Amadou Ba moom mu ngi chercher à débaucher ay partenaires ay euh, délégués am léegi journal bi xay xam lu ñu ko nee na cinq délégués régionaux de Dione débauchés. waaw ñu ñëwaat si partenariat ba nga xamante ne ah c'est entre le Sénégal et les États-Unis ñu la plus présente sur la maison des États-Unis c'est un partenariat sous forme de location vente lool la Macky Sall xamle euh, si journal euh, Le Quotidien donc euh, ñu jeexalee par l'observateur l'observateur moom ñëw na. Euh, si conseil présidentiel ak investissement yi nga xamante ne Macky Sall annoncé na ko dans les dans le cadre de sa tournée économique si région yi nga xamante ne moom mooy Kédougou Fatick Kaolack et Kaffrine donc euh, l'équation du fonds de jeu de Macky loolu la journal bi xëy titre nee na le président face au défi au défi de la mobilisation des ressources donc journal bi mu ngi posé question ni xalaat di am jiixi jaaxa par rapport ak investissement yooyu nga xamante ne président Macky Sall na ko est-ce que dina trouver les fonds est-ce que dina trouver les ressources waaw loolu la journal bi vraiment xëy donc euh, posé wu question xamal xamal ñu ko donc ñu ñëw des rek ci journal bi li nga xamante li nga xamante moom mooy. Euh, collagène muy complément alimentaire boo xamante ne euh, ces temps-ci il est très prisé par les Sénégalais donc journal bi xëy euh, dans sa une ne alerte le collagène régénérateur aux conséquences désastreuses donc dañuy jàpp ne sukkandikoo si journal bi dañuy jàpp ne collagène boobu dafay def ay effets néfaste néfaste si la santé des Sénégalais te sénégal yu bari léegi dañ koy jul di ko utiliser ko mais suñu sukkandikoo si journal bi nekk na loo xamante ne vraiment c'est pas bon pour la santé donc léegi la leen indi woon si gën a fës si xibaar yi euh, tey vendredi 24 novembre 2023 si Sene Info International ñu leen jaajëfal ñu leen di jaajëfal bu baax euh, si teewlu bi te di leen ñaanal wéelu ci jàmm Sene Info International